Nabuza is back ci seen biir émission bi di 100 people ñu fas yéene ñëwaat nak tey jii ci samedi bi euh, di 6 sixième numéro de la semaine jéglé leen euh, tout ce qui information euh, people et faits divers yi nga xamné ñoo gëna a ci biir internet ñu tambalé kon nak ci actualité people bi nga xamné nak mu ngi concerner les acteurs culturels yi nga xamné jamono ji nak yëngu nañu ba fu yëngu yem liko waral moy que nak li nga xamné moy état bi ndogal gi nga xamné jël nako ko ko ci wàllum arrêter lépp luy mobilisation waaye tamit daal di tëj ci baar yeeg resto yi mom nak mo daal di métti képp kuy artiste rawatina nak ñi nga xam ne ñoo di musicien nenañ nak trop c'est trop lu ëpp tuuru nak jamono ji dundatuñu normal lekkatuñu naanatuñu nak li nga xamne mom moom moo di seeni liggéey di seen métier dañ leen ko daal di tere waaye yemuñu ca ñi nga xam ñoo am problème location ñom metti ñu ngay wax ñu ngay wéy di joytu li ni mel way tamit ñi nga xam ne ñoo ci gëna a jamono ji di wax ci seen kàddu ñu jël ci kenn ku mel ni alias Diallo moom it daal dina wax ci turu artistes yi nee nañu sonn nañu ba fa sonn yem seen dépense su kër sax pour ñu satisfaire ko jamono jii métti na waaye tamit nee nañ li nga xam ne moom moo di location sonal na leen ba fu sonn yem bu ñu jógee ci loolu nag ba tey dañuy desandi ci les acteurs culturels lekk kii di Ngoné nduur nag moom it daal dina génn mer na ba futt daal di fas yéene jàmmarloo ki nga xam ne moom moo di le président Macky Sall ne ko nag doy na trop c'est trop ndax dañoo sonn nag sonn nañu mënatuñu jàkkaarloog suñuy njaboot ndax am nañu kersa ci ñoom école bu ñu mën a fay du seen fourniture yi ñu mën a euh, complet waaye tamit du seen lekk du seen naan jamono ji artistes yi sonn nañu ba fa sonn yem li ñuy ñaan nag mooy ñu daal di tijjuwaat resto yi comme ça ñu mën di wàññi di limiter personnes yi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci biir euh, boîte de nuit yi ñu mën ci xar tuuti matt yóbbu seeni kër li ko may yuuxu dina jëpp kenn foogewul waaye tamit euh, moom nee loolu mu ñaan état bi daf koy ñaan rek ci njëkk ak teraanga bu leen ko mayee xayrun bu ko mayoon nag ñoom pare nañ pour jaay seen bakkan pour marché pour dox seen ñako wane ne tamit am nañ lu leen metti loolu la eh, di ba ci li nga actualité fait divers ñu di ñëwaat ci cas doy ba fa doy waar yam te jamono ji nag mu ngi bëgg eh, ci mim cas ñu business des fausses eh, grossesses comment les femmes de plume les chauds lapins mu nekk nag phénomène boo jamono ji ñu koy faral di gis femmes yi nga mooy jigéen ñi nga xam ne nag jamono ji dañuy daal di piéger seen i copain wala seen i far ci li nga xam ne mooy dañoo ëmb te fekk ëmbuñu day fekk nag kooku daal di siiw wala mu am alal wala mu nekk nit koo xam ne tamit personnalité la ci réew mi ñu profité ci rek daal di leen ne dafa dañoo ëmb te boo xefee ñu publier ko siiwal la pour lan lekk ci yow xaalis pour nga mën leen jox xaalis ñu dem defi ji avortement wala ñu mën ci jox leen xaalis bu weex tàll ñu mën a dem dindi biir boobee jamono ji nag nag business boobu mu ngi gën di bëri mu ngi bëgg a law nag li ko waral nag mooy kan ni xale jigéen ñi dañuy am seeni i xaritu infirmier wala seen i xaritu médecin di complot ak ñoom bu ñu jotee ci xaalis bi daal di ko séddoog ñoom en tout cas lu ci mënti am mooy kan ni jamono ji daal dëkk bi jaxasoo na ba fu jaxasoo yem ndax heure boo xëyee rek dégg lu gën a ëpp sa bopp mu nekk fee yoo xam ne doy nañ waar buñ jógee ci loolu ba tey ci actualité fait divers yi ñu daal di ñëwaat nag ci beneen actualité fait divers boo xam ne moom doy waar lol loolu nag fan la xewee ca diwaanu rupesque ñu ne après un séjour à l'étranger il retrouve sa femme remariée et enceinte mu nekk nag loo xam doy na waar ba fu doy waar yam ki nga xam ne moom moo a fay moom nak dafa daal di amoon nag problème ki nga mode ne moo di jabaram gannaaw nag bi nga xamee ni jabaram demandé divorce ñaan ko baat lu bari yoon a fay mi daldi bañ bi ci la dem Mali Tok fa neuf mois nag daal di ñëw bi mu ci gis jabar ji ki nga xam ne nag moom moo di a ah, càndum jabar ji mariyewu na moom it a ah, càndum ba daal di ëmb bi mu ñëwee nag ki nga xam ne moom moo di a ah, fay jëkkër ji moom it dafa daal di ñëw fekk jabaram a càndum daal di ëmb ba pare am jëkkër mu nekk nag loo xam ne métti na ko ba fu métti mu daal di ko yóbbu porte ko plainte foofee ca bi ñu demee nag taxaw ki nga xam ne moom moo di a fay dafa xamle li ne mel ne jabar ji yàgg na ko ñaan baat moom mu daal di bañ dégluwu kon nag mu daal di dem sëyaat ci diggante bi ci la ñu xamee ne nag ne ki nga xam ne nag moom moo di deeloo mi nga xam ne mooy jëkkëru a càndum mi moom nag voisin am la woon faram la woon gannaaw bi nga xamee ne ñaan na baat jëkkëram mu bañ dafa daal di continuer di génn ak moom bi ñuy génn nag ci la ko kooku ëmbal bi mu ko ëmbalee nag ba pare ci la koy doog a takk pour ñoom ñaan nag ñu nekk di say jamono ji nag daal dinañ leen condamné foofee ca tribunal waaye tamit condamné à une amende ferme de vingt cinq mille francs et à payer cinq cent mille francs CFA à fay mu nekk cas yoo xam ne nag doy na waar bu fa doy waar yam xewewul fenn foofee ca diwaanu Rufisque la daal di xewee buñ jugee ci lolu ba ci actualité fait divers ñu urgence urgent Thiès explosion d'un puits de gaz dans le Notto Gouye mu nekk nak explosion bo xamné bu am doole la foofee tay ci suba nak lañ ko daldi xamlé ci li nga xamné mom modi ci village bu ñuy wax nga Ngadiaga nak ci tristesse la ñu laal di yeewoo ak métit nak néna la li nga xamné mom modi gaz manam mom moo fa exploser daldi presque ravagé dëkk ba yëpp lakk bu metti metti metti metti moo fa daal di am ñu ne nag tout est parti d'une exposition d'une conduite de gaz dans l'usine Forteza selon source yi nga xam ne moom lañ fa am mu nekk nag loo xam ne métti na ba fu metti yem jamono ji population ba ñu ngay dund ci li nga xam ne moo di njàqare gu metti métti ak naqar buñ jógee ci lolu ba dañuy ñëwaat ci beneen actualité fait divers dañuy taxawandi rek ba tey ci diwanu Thiès Thiès ka nak bi nak ci ville bi la daal di ñu ne garu Thiès de Thiès comment un chauffeur a été retrouvé mort dans son véhicule ben chauffeur dal la ñu daal di fekk mu daal di génn àdduna ci biir autom gënaaw bi nga xamé né veille bi nak def na Thiès Dakar ñaari yoon ba légui nak mu daal di jur njàkkare koku nak mu ngi tuddu Baye Sidi Fall mom nak ci jeudi bi ñu génn lañ ko daal di fekk mu daal di faatu ci biir otoom nag mu nekk anam yoo xam ne metti na ba fu metti yam jamono ji nag ñu ngi wër di wéyali enquête boobe ndax nee nañ nag la voiture en question est de type 505 7 places avec laquelle Baye Sidi moom la doon def chauffeur cette place la won Dakar Thiès jamono ji nag xamuñu ba tay lan mo waral deewam bobu waye tamit ñu ngi continuer di wéyal enquête bi en tout cas dal doyna war ba fu doy war yem waye tamit gaaru thiès ba ci metit lañu yéwo yeewoo ci jour jeudi bobé mu nekk nak tis ak nakar ci diwanu Thiès. voilà c'était votre émission 100% people ñu leen doon jégleel la tout ce qui est information people ak fait divers di am mbégte contentement né information yi jox tey neex de leen di leen ci même heure merci beaucoup à la prochaine